Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre Dakar téléphone L'augmentation des denrées de première nécessité, du ciment, du pain et enfin les factures d'électricité. loolu baax na ci ñoom donc j'ai entendu mes collègues qui disent des dettes des dettes utiles je crois que bravo le l'ancien président de la République maître Abdoulaye Wade l'autoroute à péage nous donne milliards et quelques pour 6 mois Et je veux savoir, monsieur le ministre du Budget, le ministre des Finances, la rentabilité financière du, de, euh, du Grand Théâtre et, de la, et du Monument de la Renaissance africaine. Parce que tout le monde sait que ces, ces infrastructures sont fréquentées par tous les Sénégalais. Monsieur le ministre, waaw ma ne damaa bëgg a xam paxum Sénélec bi nag mu leer ci Sénégalais yi parce que l'autre jour en commission on nous a parlé de milliards tey ñu bëgg yokk courant bi yéen xanaa da ngeen a bëgg nit ñi dee nag wala yéen bu ne sentez pas ce qui se passe dans les quartiers là surtout nous qui habitons la banlieue dafa metti nag facture courant boo ko amee neuf neuf mille francs boo ko yeexee fay tu pay tu pay un taxe ñu bëgg yokk courant bi wax dëgg yàlla metti na nag metti na trop ngeen waxtaan ci bu baax à propos de la douane je crois que les femmes il y a plus de femmes commerçantes qui fréquentent pour acheter des marchandises vingt pieds tu payes trois loolu mooy yomb loolu mooy émergence yéen a ngi nax seen bopp monsieur le ministre est-ce que bu n'avez pas je vais vous n'avez pas pris compte de la dolé des doléances des enseignants dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel pays tu seras ñi fi toog ñëpp danoo jàng ba ci sama xarit bi ci gannaaw bu jànguloon du fi toog dimbal leen ñu ci enseignants yi suñ doom lañu ñu am te boo lëggee ñooy yor réew mi te dégguma ngeen wax ci seen rappel yi monsieur le ministre ba tey l'émergence ne se pas par des chiffres Ça se sent par la diminution des des denrées, de première nécessité, de l'emploi des jeunes, de nos enfants qui passent pourtant sous l'arbre à, palabre à prendre du thé, à l'accès de la santé, surtout la santé, la santé avant tout. De la sécurité de ce pays. il faut ngeen veillé ci parce que nag Sénégal dama koy faral di wax jàmm fi xaj loolu jàmm xaju fi te dëkk nag bala maa dañu naan danañ leb ñun ñuy jànq bu rafet silvissé neex a wane dëkk bu am pétrole am gaz koo ne yow mu ne la mën a mais dama ne kuy leb dangay ngay leb boo demee ca bitig ba di lebal sa bopp bi da ngay leb loo xam ne lii yow leer na la ne mën nga koo fay leb boo xam ne da ngay jël ci ndeyjoor joxe ko wëlbatikuwaat fay ñuy tiitaroo leb leb leen lebal ba mu doy damay fay ñu fay yéen ñi sax da ngeen di fay nañ leb monsieur le ministre ma wax ni émergence bu ñu nee mille famille de pauvreté ba di leen jox bourse familiale xanaa ne bu émerger xanaa ren au moins ci 2020 bii nag war noo am 50 nag pour cent 50 pour cent yi dem ak seen bopp. yow nag oot yow mii nag yow nag yaa nar a toj réew mi yow parce que monsieur oot oot moom wuy na turam yow yaay def plan bi nga xam ne mooy suturer sénégalais yi seen maigre moyens yi ñu am. plan A économie yow bu ñu nee économie dañoo kontaan ne dañuy économiser li ñu yor kës as néew man cee añ mën a reer mën a ndékki yow nga dikk salaamaaleykum kenn fayagu la ñu ne yokk nañ courant salaamaaleykum kenn fayagu la di nga yokk leneen vraiment monsieur Hott Tukulóor Samba Ngaari Jama seetaatal li ngay def nag Sénégal yi sonn nañu. monsieur le président ma wax ni ah alhamdulilah rabil aalamiina ndegam fekk nañ daaw fekke ren xam nga ot c'est oté. loolu la tubaab wax hôtel les les maigres moyens des sénégalais ah yow tam dafa metti nag courant bi wóor na yàlla nit na na ñuy dee te kenn du leen suul dafa metti dafa metti donc il faut ngeen xalaat ci loolu Daouda ministre des finance xam naa la bu baax nous avons fait pendant trois ans et demi ci conseil de la république pour des affaires économiques et sociales nii nga mel nii nga mel man du ma taggee kenn de Ablaye Wade rek a ma ñor ak Karim waaye nga ku yaru nga wax dëgg yàlla man xaw ma lu ma lay wax ndax ma laa rus ndax sama càmmi nga te ku baax nga ku yaru nga waaye dama ne 47 milliards Singapour yi xanaa du ngeen ko jëli boole ko ci budget bi waaw ma ne dañ ne woon Karim détourné na 4000 milliards muy muy euh, budget Sénégal xanaa du ngeen ko jëli bu ngeen ko defee nit ñi noppalu te duñ yokk ceeb duñ yokk dëwlin maa ngi leen di gërëm di leen sant monsieur le président règlement intérieur yow moom xam naa la ci noonu rek nga